Eh, Sénégal franco-sénégalais bi di indi juuf di toj fële ca FC Bâle yéen ak ñëpp ak ma doon interpellé pour ma wax ci waaye gars yi mercato bi eh, gis ngeen ne joueurs yi nga xam ne wax naa leen dañuy dem fële ñoom ñoom seen ak yooyu yëpp gis ngeen ko mujj nañoo dem rejoindre club yi ma leen waxoon. alhamdulilah salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant comme ni leen ko annoncé noonu balaa ñu ñëw ci mercato beeg ñoom seen ci lañ nekk nii sax waaye Andy Diouf mi nga xam ne yaa ngeen ko interpellé dinañ wax ci moom mu doon franco-sénégalais français juddoo am na origine sénégalaise mu ngi noonee baayam boo xoolee mooy sénégalais nag Diouf la sant Andy Diouf moomay jaar na Stade Rennais toj ko jóge foofu def fële ca FC Bâle Suisse fa dem def fa saison bu exceptionnelle pat gauche la boo xam ne nii vraiment il est talentueux mu ngi noonee malgré ñun suñu milieu terrain ah mën naa ni euh, du ma leen sous-estimer te it du ma jël boobu teg leen ci kaw mën na football waaye man samay milieu terrain Sénégal fii wóoru naa leen waaye du doy pourquoi pas mën na fu war a football équipe nationale Sénégal ci bu ko nangoo man du ma kenn nag moom mooy xool bëgg-bëggam bu ñëwee baax na bu ñëwul nag mu ngi noonu Andy juuf moomee nag gars yi leen leeral que ni RC Lens ak Andy Diouf am na accord FC Bal ak ak ak ak am nañ accord ci gone googee mu jógee foofee dem rejoindre équipe France euh, club français boobee war a dem Ligue des champions déwén te seen milieu bii di Fofana Sékou Fofana ivoirien nag ñu jéem def le tout pour indi kookee di Andy Diouf mu ngi noonee yéen ñi may laaj pour mu wax ci moom mu ngi noonee gone la gu am avenir par gauche la boo xam ne ni milieu terrain bu macha allah ñu ngi xaar daal nan lay mujjee euh, ci carrière am boobee bu loolu weesoo it di leen naa leen dafay dem Tottenham dem na fi njëkk ak teranga si officiel mu ngi noonee signé na ba def présentation et tout mu ngi jógee Leicester ñëw na Tottenham mu ngi noonee kon nag bonne chance et bonne continuation ku mën football la nag xamuñu nag jamono ji li tax mu réeré ñu mbir mais mu ngi noonee waaye yamaatuñu foofu keneen ki nga waxo xam ne waxoon naa da dem ci club muy kan Avert waxoon naa ne dafa jógee Arsenal Chelsea dem Arsenal finalement noonu la mujjee macha allah mujj naa rejoindre club bii di Arsenal lay gën a nag seen yaram tàng na après ba Arsenal amee accord ak Rice Arsenal am accord West Ham ci Rice ba nar naa ñëw nga nar cee tegaat awat hmm? ah mbir mi daal mu ngi nar a neex ci euh, club boobee di Arsenal les Gunners yamaatuñu foofu gars yi leen leeral que ni kii di. Euh, Kanor Cody moom mu ngi nekk foofee ci Everton ci club bu ñoom Idrissa mu ngi waajal dem rejoindre euh, club bi di Leicester City mu ngi noonee euh, ci deuxième division anglais prix bi mu war a toll ci sept virgule cinq millions de livres sterling plus un million de livres sterling bonus waaw mu ngi noonee kooku di Cody mu ngi noonu ci yoon bi war a dem fële ca Leicester Burnley nag actuellement mu ngi ci yoon tamit am accord ak club bi di Anderlecht ci jëmm jooju di berge bi ñu naan ko. Euh, Sadiki moom nag dafa nar a dem foofee rejoindre ci euh, prix boo tolloog un million euh, d'euros moom nag mën naa ni latéral gauche la mu ngi noonee yamaatuñu foofu gars yi di leen leeral que ni Chelsea actuellement daanaka signé na gone 2004 googu brésilien bi moom nag moom lañu ñuy wax Angelo moom nag signé na fa ci 15 millions d'euros la transfert bi tollool mu ngi doon joueur boo xam ne ni nag xam naa ni peut-être fii ak suba wala ginnaaw suba dinañ ko officialiser soit mu def visite médicale bu pare. ñu officialisé ko war a signé contrat ba 2029 daanaka signé na ko ba pare mm, ay quelques documents rek moom moo ci des kookee di Angelo mu ngi noonu di leen leeral que ni Manchester United tamit fexe na nag ba kookee di Matteo Maggia moom nag prolongé na contrat am ak club mancunien bi gone gi mu ngi am vingt ans ki ñu naan Kondogbia euh, actuellement Atlético ak Marseille am nañ accord ci huit millions d'euros ñu war koo jënd mu war faa toog ba deux mille vingt sept foofee ca Olympique de Marseille ba tey nag dossier euh, Mason Mount ak ki ñu naan euh, Manchester United ak Chelsea ba léegi muy xaw a dëgër espérons suba wala semaine bi di ñëw ñu conclure ko mu ngi noonee daal ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee info mercato yi. lan leen waxoon lépp daanaka gis ngeen ko macha allah képp koo xam nag abonné goo suñu seen YouTube dem leen YouTube ngeen bind Pa Assane Gueye ngeen mën ñoo soutenir ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo dara du leen raw ci mercato bi incha allah